salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne yéenay topp seen site internet muyit point info ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen présenter émission bu bees boo xam ne dañ ko fas yéene di ànd ak yéen mu tudd ahlu xasida ahlu xasida nag jotaay la bu dañ leen di gëstul ay boroomi xam-xam yoo xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu xasida yi ngir ñu di ci leeral bu baax a baax ci ngëneel yi nga xam ne suñ borom defal na ko sëriñ bi ci xasida yi ngir mbokk yi nga xam ne ñoo ci nekk ñu gën a xam wan yoon lañ ci mën a jaar ba gën a mën a jëriñu dëgg-dëgg ci mbindum Serigne Touba émission ahlu xasida it jotaay la bub dana seeti ay jàngkat yoo xam ne dañuy yëngu ci wàllum njàng mi ñuy am ak ñoom ay laaj ak i tont yoo xam ne lépp rek day dellusiwaat ci worma ji nga xam ne moom lañ war a jox xasida yi ñuy def ay gëstu ci boroom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci xasida yi ngir ñuy tànn ay xasida di ci def ay leeral ci jamono yi nga xam ne moom la ko sëriñ bi bindee ak ci yan anam la ko bindee ak ngëneel yi nga xam ne moom la xasida googu làmboo mu nekk jotaay bu am solo boo xam ne alxemes bu jot fii ci seen site internet murit point info di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ak topp ba ñun ñi nga xam ne ñoo koy def ñu jëriñu ci waaye yéen ñi nga xam ne yéen koy teewlu it ñu jëriñu ci incha allah.